bañoon nga mais après nga bàyyi ko mu nga bàyyi waaw cest à dafa am ñaari affaire benn bi mooy dégg naa mu koy def sa benn interview mu koy nettali mais waxul sax ni mu demee. parce que boobu dama toog fii ñu toog nii maag ma dégg ñu koy annoncé mais ma départ bu ma ñëwee ma fekk ko muy def final moom ak beneen booy bi mu dikkee gis gis affaire bi moom juste muy soog a jeexal. ñu résultats résultat premier avec ému four bi nous, deux trois fois la